voilà assalamualaikum euh, mbokk yi amaan bu baax a baax euh, dala leen jàmm ci plateau spécial comme ni ko di Senegal def rek euh, à chaque match du Sénégal muy écho du Qatar tey ji nag yaakaar naa ne plateau bi war neex parce que dañu am ndam contrairement ak bu njëkk bi si plateau bi nag ma dalal fi ñaari kangam. sama ndeyjoor nak mangi ngi am ki nga xamante ni international BTC, ñi xam ko bu baax a baax équipe nationale beach soccer bu Sénégal en tant que gardien sama càmmoñ aussi ma am fi confrère un journaliste quoi, est expert la football et El donc euh, Betty maa

di féliciter Aliou Cissé bu baax a baax euh, ak ak joueurs quoi parce que Aliou Cissé def na affaire boo xam ne un grand entraîneur noonu lay def un grand coach noonu lay def parce que bu dégluwoon gars yi tey rek euh, amaana mun na génne Edouard Mendy te Edouard Mendy tey bokk na ci ñi ñu jox victoire di ko féliciter moom de passage waaw di wax ne di féliciter encore tamit équipe bi yëpp ak staff bi ak ñi ñu àndal yëpp ak supporters yi. <laughs> tey kon yow jàpp nga ne classement bi Aliou Cissé teg ak changement yi surtout titularisation bu Famara. ak tamit euh, ki nga xamante ne Ismaïla Jacob euh, gisoon nga loolu yow. ok bon entraîneur euh, tam day toll foo xam ne des fois da ngay déglu public bi parce que bu ñëpp waxee après yow da ngay def sa analyse sa autocritique nga boo nekkee yow kese nga toog xalaat mais des fois foog ngay nangul supporters yi des fois tamit am yoo xam ne foog ngay bañ parce que tey boo gisee mu indi Famara Diédhiou gars yi réclamé woon nañ ko match yi passé benn moo moo ñu xaw a moo ñu xaw a échappé mooy titularisation Ndiaye waaw dañu yaakaar dina ñëw Iliman Ndiaye mu bàyyi ko ci banc bi mais xam nga entraîneur des fois day nekk ak moom moo xam ku ci nekk moment de forme bi nga nekk ak moment bi mu la war a indi loolu dañ koy bàyyi ak entraîneur des fois tamit sénégalais yi foog ñuy nangul coach yu benn affaire moom moo nekk ak ay joueur moom moo xam ni mu leen di utiliser te tey euh, franchement parler am na dëgg ci kaw gaa yi quoi indiwaat Edouard Mendy indi Famara jeeju mais man pour man li may wax rek mooy Sénégal seen système mooy 4-4-2 nañu di jouer système 4 4 parce que bu ñu indee benn attaquant rek affaire bi day xaw a trop comme match bi passé. Mhm. comme tay mën nañu wax né Aliou Cissé dafa respecter li nga wax 4-4-2 parce que gis nañ Boulaye Dia ak ki nga xamanté moy Famara Diédhiou ñom la yobone ci kaw mu nekk deux attaquants de pointe si euh, milieu bi ñu am Nampalis ak euh, Idrissa Gana Gueye Crépin aussi ak euh, Ismaël Sarr presque il jouait le milieu tay je pense que ni kon tay mën nañ japp né Aliou Cissé lool mom moko ko may ndam El euh, bu ñu xoolee classement bi ba tay Aliou Cissé ben changement par rapport au classement bu njëkk bi parce que gis nañ Abdou Diallo ñëw pointe waat le père donc. Kalidou Koulibaly Abdou Diallo tay mom lañu gissat ñu giss ci côté bi euh, Jacobs tay est-ce que Tay défensivement Sénégal était prête pour que euh, euh, Qatar bañ dougal but. bon tout d'abord dañuy féliciter Aliou Cissé. Hein, ci ndam nga xam ne ko. parce que trois points dafa nekkoon lo xamné lu am important la moo lay delloo si waat course bi. kon aussi aujourd'hui bu ñëwee ñu am trois points dañ dañ koy féliciter par féliciter joueurs yi féliciter de l'équipe euh, staff bi daal. Mm-hmm. bon je pense que classement bi man loolu laa doon xaar si classement bi. Mm-hmm. parce que aussi boo xoolee nu mu indi Jacob mu ñëw jël ab euh, comment dirais-je euh, Diallo. ab Diallo delloowaat ko si père moo Kalidou Koulibaly mm-hmm. ñun loolu la doon xaar peut-être premier match boo gisee Abdou Diallo ñëwoon laa mooy cest amoon nañ. blessure waaw Fodé Ballo ñëw il faut amul waaw non Jacob sax aussi boo xoolee ci ah. dernier minute bi da ko FIFA doo ko mën a jox yoo xam ne mën naa jouer pour le Sénégal. match euh, éligible pour. éligible Sénégal moo tax aussi. est-ce que ko ñàkk woon wóolu rek. parce que boo gisee tey mu titularisé peut parce que on pense que ne tey euh, booy bi euh, bonne entrée bu mu def ko dama dama jàppoon ne booy bi. jouer pour pour premier parce que même président fédération sénégalaise de football sax waxoon na ko. du jouer match bi. tout match bi moom dina dina pare quoi. kon j' espère que bu FIFA ñëwee ba dernier ba match bi mu indi ko. foofu nag aussi doo ñëw aussi yàq sa classe sa changement quand même. mais tey boo xoolee euh, Aliou nu mu joué ñëw indi Kalidou Koulibaly indi Abou Diallo. ñu ànd nga jël euh, Jacob ak euh, l'autre là l'autre défenseur là. Sabali loolu défense loolu la ñu xool nga ñëw joué ñaar fii indi Nampalys ak Gana. te boo xoolee Nampalys ak Gana la indi jël fee milieu terrain bi. moo fa nekkoon ak euh, Ismaïla Sarr. tey boo xoolee li mu keneen bu bu nekkoon Qatar du joué noonu. si tout à bu nekkoon Qatar du joué noonu. parce que loolu xam na xam na xel ne Qatar. amul atu offensive boo xam ni war nañu mën a sonal défense Sénégal bi ma am ndax boo xoolee dafa ubbi gars yi boo xoolee euh, le numéro 11 de Qatar di Qatar. Afif da doon libre mais bu ñëwee ba si dernier carré day day am problème du am ku j' espère que Aliou tey am na dëgg si gaa yi mais aussi gars yi aussi il faut que ñu béy entraîneur ak xelam. parce que Sénégal ay Sénégal tamit ñu ñëw ay entraîneur lañ tamit. waaw mais. mais est-ce que tamit leen saa critique yi di def euh, du tax du indi Aliou Cissé du indi Aliou Cissé tam mu mu tontu parce que tey gis na Elimane Ndiaye Elimane Ndiaye dugg na deuxième mi-temps alors pense que dina bokk ci ci effectif bi. Euh, Biti yow est-ce que tey Krépin Diatta rôle bu ñu ko joxoon tey. ne ko nekkal le meneur de jeu est-ce que joué na parce que dañu gis accélération côté gauche le côté euh, côté côté Youssouf côté côté Ismaël Jacobs boo xoolee Krépin dafa nekkoon euh, côté dafa dafa excentré woon trop trop est-ce que tu as loolu pénalisé wul Famara tey pour mu mun jot assez de ballon. bon ñun boo xoolee euh, depuis biñ ne Sadio Mané dafa blessé ba léegi foofu problème boobu dañ ko am foofu parce que dañu am benn boo xoolee suñu match contre Pays-Bas De Jong nu mu doon libre ñun amuñu joueur bu mel noonu équipe nationale. effectivement ñun ñun amu parce que boo gisee système bi ñu joué premier bi mooy trois milieux récupérateurs. trois milieux récupérateurs boo ko joué nag ñee fort fort dañuy am benn milieu terrain boo xam ne moom mooy sédd parce que De Jong rôle boobu la ñu gagné bii passe loolu nag euh, euh, pays organisateur bi tey amu ko. amu ko parce que non amuñu woon amuñu woon meneur de parce que boo xoolee tey comme ni ko sama frère waxee hélas nu mu ko waxee tey boo gisee deux mille récupérateur mooy kon wóolu na li nekk ci ginnaawam tey ragalul eh, équipe bi ñu tasal tey mais Pays-Bas dañu xaw a doon douter douter moo tax indi 3 millions de perte loolu moo ñu xaw sonal mais kaaw Krépin jaata man pour man fuñ koy jouer la c'est parce que c'est un professionnel man pour man buñ ko jouer le milieu comme meneur buñ ko jouer excentré war na def rôle quoi parce que tay bo gisee tax tay bo gisee bi bi dugg sax pour man Krépin tay il a bien joué aujourd'hui tay mom apporté nañu lu bari bari. a bien joué euh, Bétissi kon nag euh, mën nañ jàpp mais offensivement man personnellement offensivement Crépin liñ ko doon xaaree ak lamu mënon mënoon mënatu ko parce que tay bo xalé perquisition yi mu doon def combat yi mu daan gagné comme niko Eliman Elimane Ndiaye gagné pour mu jox euh, ki nga xam mo Eli euh, Bamba Crépin euh, mënatul lolu je sais pas sa Mané moo ko doon football lo je sais pas mais premier match bi wanel ko même tay aussi Crépin n'a pas Crépin n'a pas tiré. Crépin était était était impuissant si kanam adversaire Moi, je pense que Crépin Crépin Crépin lu mu doon géré dëgg dëgg dëgg. motewu ko quoi ñëwul. parce que boo xoolee bal yi ñu doon jël yi mu yóbbu yëpp après day delluwaat day ñëwaat amul benn yoon boo xam ne dugal ci surface bi créer occasion wala nangam nangam. alors nga xam ne Sadio Mané mi ngi doon jouer Krépin ak Ismaïla Sarr la ñu doon xaaree parce que ñoom ñu war ñëw boot équipe mais je pense que ñoom ñaar seen prestation yi ñu def. non non vraiment xaaruwul nii quoi si ñoom. Mm, surtout surtout Ismaïla euh, Biti Ismaïla Sarr avant muy dem dañ ko sololoon mbubu Sadio Mané. ñu ne ko so démé yow yaay représenté Sadio Mané tu seras donc ko xamanteni yow yaay étincelant yaay mëna yaay mëna casser match bi mais est-ce que tamit charge bobu ñu tek ko motax mu fay parce que premier match deuxième match Ismaël Sarr mënañ wax né gisunu ko quoi et puis Aliou Cissé ko tamit est-ce que Ismaïla Sarr tey loolu nekkul yéen bu diis ci moom. bon Ismaïla Sarr avant muy dem mondial bi dañ ko jox comme ni nga ko waxee mbubu Sadio Mané man pour man Ismaïla Sarr bu ñu ko joxee mbubu Sadio Mané war na leen war mun na mën ne Sadio Mané bu fi nekkul mun naa def lu raw loolu mais lépp nag équipe mooy gagné match. Mhm. mais soo ñëwee nga ne man maay man maay def loolu Sadio Mané tu risques de passer à côté. est que tamit wanewul ay limitam tamit. bah su ñu ne mënoo ko te ñu yow joueur nga mais tu de devais être capable comme nous ko Mbappé di defee ak yeneen ailier d'éliminer ton adversaire pour nga mën casser les lignes dugg surface mais jusqu'à présent mënuñ gis Ismaël def loolu. bon man pour man nag mu ngi jéem mu ngi jéem comme boo xoolee suñu première match bi mais day jékki-jékki bu joué ay 65 minutes après affaire wu da koy bàyyiwaat te non daf ko war a continuer ba match bi jeex. Ismaël Sarr bokk na joueur yi nga xam ne apport offensif moom moo war a nekk le numéro moo war a déclencher affaire bi. Ismaël Sarr tey fi ñu koy xaar mooy percussion yi di dugg ci biir gars yi di dindi di jàkkaarloo góol di di indi ay frappe. di indi ay fra ba pare occasion de bii Ismaël Sarr mu koy dugal man pour man dañ ko war a préparer ci ci ci yi xam nga devant le but moom loolu daf ci war a liggéey lu bari bëri dina def lépp ba mu des après ci dernière tiers bi foofu la ci dernière tiers bi foofu la faay di feeñee te pour man war na am ay qualité yoo xam ne bu duggee ci biir surface bi war na war na ñu mun a mais dugg ci surface yi football Ousmane Dembélé rarement Ousmane Dembélé ça moko ko tane parce que au moins Ousmane Dembélé day gagner duel ñeu dagg terrain bi dóor cadré mais Ismaël Sarr rare mu dagg dugg ci biir terrain bi wala mu ñeu créer ay danger pour passe alors que jeune la aussi mu ci dig dolem tay je pense que ni warna mëna def lolu xam nga euh, dëgg la sax Sadio Mané absent Ismaël Sarr mo fi nek mais xam nga tamit euh, Sadio Mané kessé absence Sadio Mané pour man warul feeñ carrément carrément quoi parce que ñoom tam ay professionnel lañ boo gisee yeneen équipe yi am nañu ay joueurs yu blessé te ñoom bu ñëwee ñooñu seen absence du feeñ. Mm-hmm. mais dëgg la Sadio Mané c'est un grand joueur te bu manqué ci équipe bi day feeñ mais war nañ mën a fubal ba nga xam ne kenn du sentir absence Sadio Mané. sa loolu mooy Ismaïla Sarr loolu loolu mooy rôle am loolu mooy vrai rôle bu mu war a def ci équipe bi faire il faut nous faire oublier ça Mané. loolu la ñu def. en tout cas oublier ça Mané du yomb ndaxte euh, c' un lion le deuxième ballon d'or mondial le ballon d'or africain également euh, tey xam naa ne fu mu mais tey nag xam naa ne joueurs yi kontaan nañ bu baax voilà donc mais bu ñu xoolee euh, ba tey ci Aliou Cissé li mu on dirait que Boulaye Dia l'homme du match oui il est l'homme du match il est aussi il a décanté la situation mais Boulaye Dia tey gis nañ beneen façon de jeu am si

boo bëggee boo bëggee kii di démarqué wu. mais c'est sa différence entre moom ak Famara nest pas Famara day xaar. non Famara day xaar Famara Famara day xaar mais Boulaye au moins di nga gis mu ñëw dugg jël bal bi joppaase dem génnaat euh. boo xoolee Famara aussi. Euh, match def na match bu baax match bu correct bien vrai que nag lu ñu xaar xaaru dëgg dëgg dëgg sama gisuñ ko waaye nag

il était obligé de prendre le ballon. bal c'est le véritable problème pour dire que problème Sénégal c'est pour avoir les les lignes là diggante centre bi si dig bi manam ci côté euh, numéro 10 bi jëm ci euh, ailier droite attaquant de pointe ak attaquant B ba tey boo depuis Fadiga mhm. depuis Fadiga ba légui Sénégal a, ce problème là parce que si on se souvient de, du, du but Sénégal Danemark en Coupe du Monde ouais, comme ça un camarade a récupéré le ballon côté droite une passe El Hadji Diouf Khalilou Fadiga Fadiga si milieu bi la taxaw wàññi touti passe décisive à à Salif Diao ñun pourquoi pas tey ñu mënu am milieu boo il est capable de faire des passes de casser les lignes entre le gardien de but et et, le, et, et aussi la défense selon vous est-ce que tey ki nga xamante ni tey moom lañ dugal tey muy Iliman est-ce que mën na parce que le plus souvent nee nañ milieu de terrain mais tamit mën na excentré bon pour man Iliman Ndiaye war na mun quoi parce que que moo ngi koy joué nor moo ngi comme li ma lay wax rek entraîneur moom moo xam ay joueurs moom mooy nekk ñoom tout peut-être moo ngi koy essayé si séance d'entraînement yi doxul peut-être euh, ñun xamuñu daal parce que nekk ñu fa mais pour man li gars di wax mu koy baye xel diko ko essayer peut-être mu koy essayer entraînement doxul man pour man daal lu mu xas ba indi terrain rek pour man loolu la essayer entraînement mu dox moo mu koy indi. voilà donc euh, kon mu ngi noonu Iliman Ndiaye je pense que kon sénégalais tay dinañ kontaan <laughs> parce que ñu ko do réclamer bu baax baax Eliman Ndiaye def wara duggu voilà tay dugg na def na passe décisif avec des percussions yo xam ay combat yo xam da ko gagner euh, vraiment on, on s'en félicite je pense que leçon bu muy joxe Aliou Cissé la pour ak place am bi nga xamante war nako am ci ci euh, ci équipe nationale bu Sénégal. Euh, euh, waaye nak euh, ken du wax te du wax tay euh, duñu wax Edouard Mendy. Edou Doudou. Doudou am raison dé am raison si sénégalais wala Aliou Cissé am raison si sénégalais parce que avant avant match bi Aliou Cissé daf ko jappal malgré tout il loue les qualités d'Edouard Mendy parce que les erreurs du ñak si si football mais Edouard Mendy il pas changeable dans cette équipe du Sénégal. Hein. foofu man je félicite Alain Cissé. Mhm. parce que si gis joueur muy gardien muy joueur bu nekkee si ah il a besoin le soutien de l'entraîneur. entraîneur bu ko wóoloo rek say coéquipier wóolu la rek mën ngaa ñëw si marché bi mais le fait que tey mu am benn match def benn erreur ñëpp bàyyi ko erreur bi mën na ko yóbbuwaat ba club bi ngi def mais le fait que Aliou Cissé ñëw reconduire ko joxaat confiance loolu moo image marché bi te boo xoolee tey. daf ñu si génne am na ñaari kii yoo xam ne ñaari parade yoo xam ne parade yoo xam ne yëpp waaw kon j' espère que aussi sénégalais aussi ah nañuy pardonné kaw nañ nañu jëlal parce que aussi nag lu joxe ngay wax nag parce que ñun ñëw ay entraîneur la waaw parce que mënoo def benn erreur rek ñu jàpp ne baaxoo quoi hmm. mënta nekk mais xam nga erreur yi daf ko topp depuis club boo xoolee boo xoolee euh, Kepa moo nekkoon numéro un avant ñëw mondial comprendre nga grâce à ces erreurs loolu moo euh, euh, entraîneur bi teg ko si banc bi tey bu ñëwaat ci coupe du monde bi premier match nga def ay erreur ñu ne ñaari but yëpp yaa ko def. mais d' accord xam nga d' accord dafa ay erreur mais ñi nga xam ne c' est grand gardien. Mhm. léegi nag pour ñu ko nag erreur yooyu yow yow en tant que entraîneur am boobu le fait que nga joxaat na ko malgré les ñëwaat yow la yow laa yow laa gëm. loolu moo ko indiwaat si match bi alors que tey il a bien démontré. vraiment en tant que gardien de but yow te Edouard Mendy gis nañ ay paxaat. te soo nekkoon place am tey ak situation bu mu ñëwé ci match bi ñi koy critiquer ci réseaux sociaux yi Aliou Cissé jàppal ko tank bon avant tout d'abord man damay féliciter Aliou Cissé di féliciter encore tamit le grand Tony. Tony Silva. Tony Silva. Mhm. parce que le fait que bah. mom ak expérience am. Hein, peut-être waaye le le waaye le grand le grand Tony. Mhm. parce que bo xolé mom tamit amna ben année Coupe d'Afrique mu jël meilleur gardien. Mhm. té ba muy nekk Lille amoon na nekkuloon titulaire. peut-être mok ak Cissé gissé nañ waxtaan nañ. peut-être bu ñu amuloon ku mel ni Tony Silva foofu mun nañ def erreur mais pour man Tony Silva jàpp na si gis nga jour du ñëw boo xamee ay qualité mhm. parce que nit nit rek la nit day def erreur parce que boo xoolee Tony bi góolu Coupe d'Afrique bi ak Tony moment yi du benn jour nag mun nga am sa problème sa club c'est équipe nationale ñoo la war mhm. tay bu topone waxu ni ci génné ko mun na jouer ci carrière am. mun nañ mun nañ perte goal bu toll ni mhm. parce que c'est pas une raison ñuy perte goal bu toll ni Edouard Mendy. parce que Edouard Mendy lo mëna wax tay Euh, il fait partie des grands gardiens. du monde même du monde même malgré sa situation. waaw lool motax tay Ali Cissé fofu dañ koy féliciter bu baax baax le fait que mu indiwaat ko parce que bu dégluwoon nit yi ba génné ko parce que Seyni Dieng tey ah, ak Gomis ñu toog ba coupe du monde bi jeex joué wuñu dëgg la ay joueurs la dañu bëgg joué mais loolu du gàcce. Seyni Dieng tey mu toog ban ba coupe du monde bi jeex du gàcce. du impacté dara seen parce que waaw. parce que du impacté dara seen du impacté dara mais tey nga jël ni ku mel ni Edouard Mendy tey. Mhm. génnee ko war a indi seeni Dieng après loolu mun na sax am lu mu yàq ci regroupement bi. suñu compétition waaw suñu suñu compétition sax mun na mun war a delluwaat Chelsea encore loolu toppaat ko moo tax boo gisee moom tamit tey dañ ko war a féliciter parce que def na rôle parce que un grand joueur fi lañ koy xaré bu ñëpp di la critiquer nan no waru jé nga ñëw coach bi am ci yow confiance dugalaat la da nga koy wan confiance bi nga am ci man man mun lu ëpp lool parce que tay bo xolé tay bi bu mu sauvé tay bu duggoon mun na métti trop ci Sénégal parce que moment bobu ñu ngi ñu ngi souffrir ñu ngi souffrir té bo waxé un grand équipe un grand gardien équipe lu mu rëy rëy te amul góol bu mag bi ci ginnaaw day am problème amal attaquant amal joueur amul lépp mais foog nga am góol bu mag si ginnaaw waaw tey loolu bokk na ci li ñu génne ci match bi critique yi ñu def ci moom tamit baax mhm. parce que tamit sans critique yi du ñu dem parce que boo xoolee critique yi ñu ko critiqué tey moo tax mu def match bi mu parce que day wax Sénégal yi instant ñu ngi may commencé weddi ñu ngi maa ngi commencé kii war naa yeewu nag pour génne Sénégalais tey loolu boobu la doon joué tey dafa doon woon ne Sénégalais li may def mun naa ko mhm. Edouard du du xam naa ne euh, moom tey bu nekkul woon moom tamit Sénégal du jël coupe du coupe d' Afrique parce que arrêt yi nga xamante ni def na ko ci ci ci ci kan bi moo tax Sadio Mané mën a dóor dugal ñu gagné. voilà dañu des si match bi ba léegi gis nañ changement yi Aliou bi ñu def changement dafa def changement li ko daloon keroog dal ko parce que dafa def changement rek gars yi dugal léegi mais. est-ce que deful coaching gagnant parce que ñaar yi nga xamante ni tey moom la moom la dugal muy Iliman Ndiaye ak Bamba ñoom ñoo ñoo ñoo rey match bi est-ce que tamit foofu Aliou Cissé ah. joué fa jeu boo xamante ni coaching gagnant la. quoi qu'on puisse dire coaching gagnant la. loolu nga wax. Ah. parce que dafa dugal dugal. Mhm. waaw lu mu erreur bu mu am it vraiment mënoo wax changement yu baaxul quand même. tout à fait que xam nga changement boo ko defee balaa gars yi am repère. Mhm. équipe adversaire day moom mooy moom bi. léegi nag ñu foofu on a besoin les grands joueurs ñinga nga xam ne am na am na expérience. ñu loolu temps fort boobu ñu ñoo koy temps faible boobu ñoom ñoo koy gérer. temps fort boobu yow yaa koy gérer le fait que joueurs yi dugg yi ñëw gën am tout tàng ñëw tàng. mais que expérience boobu tey tey parce que ay xale la dugal. bul ñi nga xam ne dugg. maanaam hmm. ceux qui étaient sur le terrain loolu temps faible boobu ñoom ñoo koy gérer xam ñoo koy gérer le gardien comme Koulibaly euh, ñooñu ay diggante ñoom ñoo téye bal bi xam ne ñii kat dañu doon dugg amul repère si terrain bi xaaral ma ñu téye ba casser le rythme waaw boo xoolee bi Abdou bi euh, Jacob génnee Abou Diallo dafa retard si centre bi. Kalidou Koulibaly ñëw seetaan. Hmm. Kalidou hmm. waa ji waa ji coupé. waaw coupé coupé ko Pape seetaan mu nit. muy daw dugg. non la bal bi si Pathé la romb dem si euh, Kalidou Koulibaly waaw boo ko xoolee nun la duggee. mais nag coach si gagnant la parce que indi na Iliman. Mhm. gars ko réclamé. Mhm. yal na kaa dugal indi Bamba. Pathé 6 Pamatar. Mhm. loolu loolu la gaa doon xaar boo xoolee trois jours yi nga xamante ni moom la. moom la gaa doon réclamé moom la leen indil. alors ils ont fait la différence kon nag kon suñu gagné lañ ko wax dama gàcce gàllaama di ko féliciter rek waaw beneen victoire bu Aliou am aussi pour moi parce que si réseaux sociaux ba tey parce que da ngay gis ñu doon critiquer Bamba Dieng euh, il n'a pas sa place euh, dans l'ossature dans cette équipe du Sénégal aujourd'hui Bamba Dieng dugg dugal but chance la wala Aliou Cissé da ko jàppal tànk ba tey bon man pour man Bamba Dieng ku koy critiquer rek euh, da nga xamul jour parce que Bamba Dieng

Aliou a a raison gars dougal na na les gars de wax Mama xamul dara hein <laughs> jour day toll moment day pas ci problème parce que nit nit rek nga doon. am problème sa club équipe nationale la première ñu dougal rek nga bi Sénégal tam patient. foog ñuy patient parce que équipe yi tamit ñëwuñu rek génn jóge regroupement ñëw rek pour ñu gañe leen wala pour ñu góol yi tamit taxawuñ ci cas yi rek pour ñu pour ñu pour ñu dugal leen ay bii ñoom tam dañuy bëgg sauver bu ñu génnee ñu leen leen def ngeen match booy boobu loo ko munte waxal joueur bu mag la te gëm na boppam te bëgg na lu muy def parce que des fois bëgg li muy def bu mu ëpp sax des fois pour man moo tax muy raté yenn yenn non comme comme nga gis nga le cas de Bamba Dieng le cas de Bamba Dieng mënoo ko wax dara aussi alaaj dagguma la Bamba Dieng aussi effort bi nga xamante moom la jeune war a def comme il Ndiaye ni mu koy defee comme ñom euh, niko niko wi ñi am genre boy yooyu percutant sawar. di dribblé di dóor mais bama ñe bu dul but yow do gis do gis jeu Bamba Dieng. non bama ñe Coupe d'Afrique bi loo koy loo koy reproché. loo koy reproché Bamba Dieng bi ñu ko titularisé premier match deuxième mi-temps la dugg mu football Aliou Cissé ko dugal ko deuxième euh, deuxième match mu titulaire deful dara bañ toogloo ko. contre Burkina Faso la ñew remplaçant dugal. kon on dirait que jour remplaçant la. Ah. ak li mu fekk dund Marseille kooku si xalé nga ñew

gars yi xam fi ngay génnee ak fi ngay laajee ak boo ñëwee équipe nationale bokkul équipe nationale dafa laaj patience parce que joueurs yi balaa ñuy miinante ku nekk xam li nga mën ak loo mënul foofu temps du la xaar mais club da ngay nekk foofu neuf mois ak joueur ko ku nekk dina di nga xam qualité sa morom mm-hmm. mais équipe nationale duñ la may lool léegi nag Bamba Dieng mooy def boppam mooy xam ne coupe du monde la nekk te gars yi dañ koy xaar mais nag am na côté bi nga waxee dama la koy nangul mais expérience bi tamit amagul parce que boy, bo xolé ay xalé lañ. ñu ngi ñu ngi doore ñew équipe nationale. Hein. waaw waaw wa gis nga. effectivement hein. yow Diao Balde ba muy door a lan lañ fi doon wax Diao Balde Diao mu ñew anamu tay Diao Balde mais non la rek pour man boy li ñu gën di dem rek. après li ñu waaw d'accord Witi euh, si légui Sénégal euh, bu ñu xolé ba tay euh, si on calcule calcule mathématiquement.

hélas match oh, final lay doon non final lay doon hmm. muy défaite ci côté muy défaite ci côté équateur muy muy final la parce que ñun on a besoin de 6 points kon 6 points yi da nga dem jëli waaw doo xaar affaire bi instant bi destin mi ngi sa loxo tout à fait instant bi yow lu lay génne mi ngi sa loxo kon na ya, yow final nga am final ngay jouer jàppal ne ko final ngay jouer jouer rek dem rek doo ñëw di di imposer aussi yaakaaroon ne match boobu vu que physiquement ak euh, nu ñu niroo jeu am nga si yaakaar bu baax ah, bañ am yaakaar no <laughs> Mamadou yaakaar bu baax la si juste que bu ñëwee amul liir jeu amul kii da nga ñëw rek def li nga am xam ne final ngay jouer final lay jouer gënu jour soo gënul gënu lay jour quand même bu tey Qatar bi ñu football ak tey peut-être que tey boo xoolee Qatar Qatar man leer na bu amul deuxième match bu ko amul Équateur du yombee du noonu. boo xoolee ñoom seen premier match peut-être xam naa première fois mondial coupe du monde ak seen public bi ñu xaw a parti moo boo xoolee les bi ñu ngi jël premier mi-temps deuxième mi-temps géré ko ko naa ne ñun tey Qatar bi Sénégal football ak su footballoon ak Équateur gëmmu Équateur gagné ko kon jàpp naa ne ñun final lañu football da ngaa foog ne ñoom damaa yaakaar ne kon ñoom dañuy dañuy dañuy dañuy mûr euh, au cours euh, Euh, de la coupe du monde. effectivement premier match deuxième match joué flamme. troisième match aussi est-ce que tenir à pays espérons. voilà instant bi euh, c'est. est-ce que euh, départ deuxième mi-temps parce que deuxième mi-temps y avait plus de plus de percussion. plus de mhm. rapidité mhm. ci milieu bi ak attaque mhm. vu que Matar Matar est-ce que tey euh, kon euh, est du ñu def maanaam match boo xamante match jeunesse lay doon pour pour mu gaaw pour ñu mën a dugal but parce que ñun suñu problème mooy dugal but. boo man tey su ma nekkoon place euh, li termine match bi moom laay démarré match bi di ñëw. waaw mm. ah, parce que match bi dafa laaj physique. Mm. match bi ñëw dafa laaj physique ba pare benn affaire tamit am na te gars yi bàyyi ñu xel ñun lu ñu jël bii bal arrêté dafa bari bari bari trop mm. te duñu duggal bal arrêté. ñun luñ ci jël bi dafa bari trop trop trop trop. te match bi di ñëw ni war ñu jël bi parce que bi itam ñu ngi commencé bari te gaay yi wuñ ci xel te. jël ay bii yu bëri da lay sonal te match bii di ñëw war ñu si demee ak calcul. parce que man des pour man ah gars yi wax Aliou Cissé Aliou Cissé mais joueurs yi tamit ay ñoom Idrissa Gana Gueye ñoom Koulibaly war nañ jël seen responsable a sóor xam nga tamit jour des fois boo nekk terrain yow di def gis Aliou Cissé ne équipe bi kat ñemewuñu li ñuy joué nii ñun mun nañ leen war a mën a bëtt dugal leen ñoom ñu jël seen responsabilité gagné match xam nga match day toll foo xam ne des jour moo koy gagné mm-hmm. du coach coach du dirigeant du dara joueurs yi ñooy xool match bi dañ ko war a gagné ñu dem jële ñu ne coach bi tey amul briefing amul dara match bi suñu match la ñun ñoo koy gagneel waa Sénégal qualifier l'équipe bi foofu la toll quoi parce que loo mun a wax joueurs yi am na lu ñu amel mooy coupe du monde bi dañ am na fu ñu yeggoon mhm. normalement bu ñu yeggul foofu waruñu waru warul moyen quoi dañ ko war a romb wala ñu wala foofu d' bi ci si donc euh, mu am mbégte rek vraiment ànd ak yéen ci plateau bi euh, Betty xam naa dañuy jëm def benn rappel rek Sénégal kon bi mooy quatrième victoire am ci ci coupe du monde bi mooy troisième fois tamit muy def participation si coupe du monde vraiment ñu koy ñaanal bu baax a baax mu gën ci poule bi dem huitième de finale quart de finale demi finale finale jël coupe bi. parce que loolu lañ leen sante loolu la leen euh, njiiti réew mi sant parce que dem rek message bu fort la parce que il faut ñu rappeler ko ci guddi daf leen message bu daw yaram message bu xamante ni tey. képp kuy dem guerre buñ la ko joxee rek di nga lu mayo donc euh, loolu la président def ak ñi nga xamante ñu nekk si euh, euh, staff technique bu Sénégal bi ci dama lay bàyyi rek nga tàggatoo ak ñi nga xamante ni tey ñoom ñu amoon mbégte di la seetaan. ah bon di rafetlu émission bi kontaan trop di ñëw fii télévision TV Grand FTV ah di ko rafetlu bu baax a baax. di rafetlu tamit invitation bi di ci kontaan bu baax a baax may ñu may ñu ñu mun a wax si match yi xam di ñaanal yàlla Sénégal am ndam ci match yi ci topp yëpp. waaw di ñaan yàlla parce que Sénégal bu amee ndam ñun ñëpp ñoo am ndam bu joueur yi amee ndam ñun ñëpp ñoo am ndam. Mm. kon nañu boole xol yi ñun ñaan yàlla defal ñu ndam parce que gars yi gëmuñu ne coupe du monde war na mën a dugg Afrique mm. mais yàlla mun na lu ne. te yàlla li mu am du jeex. Mm. te pour ñun la nañ ko tàllal loxoy ñaan bu kenn ne man maa tax équipe bi gagné man maay def lii équipe bi gañe leen rek la ñu am mooy ñaan. nañu ñaan yàlla yàlla mi maye yàlla may ñu ndam te mu jig ñu fekkee ko tal ko ak jàmm incha allah merci bon moom waaw xanaa di la remercier si invitation bi fii di remercier aussi borom kër gi di remercier aussi les techniciens di leen remercier yëpp di ñaan rek comme na ko le grand gardien waxee di ñaanal Aliou Cissé ak kii waaw ak joueurs ba lépp li ñuy xaar si ñoom rek si coupe du monde rek ñu indil ñu ko muy coupe bi waaw xam naa comme ni nga ko defoon coupe d'Afrique bi neexoon na. coupe du monde day daax. waaw dina ñaan na rek di ñaan la aussi féliciter. si liggéey bu rafet bi ngay def. mais vrai que depuis lors yaa si ko.

gars yi ñu ngi ca kër ya voilà donc téléspectateurs yi kon ñu ngi leen gërëm bu baax baax di gërëm ñi nga xamante ni ñoom ñooy caméraman yi nekkoon ci ginnaaw ba image leer comme ni mu ko waxee rek ñoom ñoo nekk ci waañ bi di ko togg ba mu neex a gis euh, moor moo nekk ci wet ga ak euh, Sidia Aïcha ak ki nga xamante mooy Seynabou Dia di gërëm ñëpp di sant ñëpp mbokk yi kon beneen yoon incha allah jërë ngeen